ñi dëkkee Ngajaga ñoom ak njaaxle ginnaaw bi nga xamante ni sandarma tàbbi na ci xur bu nu ubbi woon foofee ngir fay lakk gi ñeel teenu gaz bu fa boobaak léegi di tàkk askan wa ne bu nu sañoon kilifa jëli matuwaay ba yokkal leen seenu kaaraange rawatina luy ñàkk xur wa fa Cheikh Anta daanaka tàkk-tàkk li ba léegi nag mu ngi gën di jolli américain yi nag ñi ngi ci ngir mën koo fay sandarma bi nga xamante ne moom moo faatu ci bassin de rétention bi jur na coow rëy ci dëkk bi ndaw ñi di wax ni ak càggante ci la Mame Samba Gadiaga moom moo yor kàddu ndaw ñi nekk fii ci Ngadiaga dañuy présenter suñu condoléance euh, parce que perte bu metti la aussi sooy dégg seen communication sax da ngay sentir ni joxuñu ko benn fulla bassin de rétention bu toll nii ak dimension bi mu am lu ñu ci def ci ndox donc kon mérité woon na ñu defar des barrières de sécurité mu wër ko barrière de sécurité yi am na benn côté bi muy côté bi nga xamante ni moo sës ci côté bi teenu gaz bi nekk mais côté bi féete ak dëkk bi amul benn barrière yi bari na lool ci dëkk bi waaye nag nee nañ amul nañ benn njariñ Fortensa depuis mu installé fi yàgg na trop ay at yu bari la c'est depuis 1996 mais amul lenn lu Fortensa initier ñëw def ko Ngadiaga su amoon dinañ inauguré ñoom ñu yokku si ne tàkk-tàkk bii de yeneen pexe war nañ koo xool ndaxte nee nañ dafa am lu ci rax andi nañ fi ay experts benn société américaine bu ñuy wax Halliburton depuis plus de quinze jours ñoo ngi fi mais mënuñu si dara doon nañ gis yu fi doon xew yenn saa ay gaz bi di dem ba yàgg problème am ñu ne ah, rabu dëkk bi kat moo tëdd ci tiwo bi wala rabu dëkk bi moo def li moo def laa ñu waxtaane kilifa yi ñu def ay ñaan def ay sarax euh, yàlla def gaz bi continuer dox ci interview bi nga xamante ni moom lañu doon amal ak ndaw ñi ci la ay ñaari takk der nag ñëw teg loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite kuréel gi maam Samba Gajaga ak Baba Mbeng ko waa Gajaga yëgee